xew na euh, quoi qu'on puisse dire peut-être euh, suivre nga ko de près et de loin. Mhm. Euh, naka na analyser li nga xamné nekk modi circonstances yi nga xamni tam dem Ousmane Sonko vécu nako ak li nga xamné nekk modi les forces de l'ordre. euh dafa ñaaw. Mm. dafa ñaaw. Mm. démb tok na bané vraiment. Mm. li képp kuy nitu deug mu encaisser ko cautionner ko. c'est parce que li ngay woté néwul ci yow. dafa ñaaw surtout ci affaire bo xamné affaire privée la. nga xamné ñaari nit la concerné muy Ousmane Sonko ak Mame Mbaye Niang man déjà li may ñëk wax mooy fan ban étape. Euh, état bi déjà moy affaire privée bobu non ñu jël ko tënk ko mu bëgg euh, manam résumer tout ce qui est actualité so soo waxu ñu ci leneen utilise ci histoire um, affaire Mame ñaw Niang euh, boobu Ousmane Sonko du ku ndaw aussi du ku ndaw parce que si li nga xam nekk moo son avenir est en mm. jeu jëm si li nga xam nekk moo di candidature 2024 si toutefois il est condamné par rapport à cette affaire mm-hmm. doomu bokk élection présidentielle même su des ñooñu duñu n'importe qui ci réew mi mais affaire bi ça reste une affaire privée entre ñaar ñaari citoyen sénégalais. est-ce que ce n'est privé privé tamit euh, peut-être ñi naan dañuy sakal père Ousmane Sonko d'une profité par rapport à loolu non parce que Ousmane Sonko euh, jamono ji masse euh, masse populaire bi la Dadi dépend dépendre peut-être wala comme sax la Dadi yakar peut-être pour pour mu mën quoi qu'il en soit que engagez le président de la république que engagez le chef leader de l'opposition, Bataille mm. ba affaire privée affaire privée c'est ci droit li nga xam ne dafa séq ñaari nit ñoo xam ay lambda mm-hmm. parce que Ousmane Sonko avant d'être leader. c'est mm. un citoyen sénégalais. Mm-hmm. affaire privée là déjà. Mm-hmm. ñaata ñaata plainte tey ñoo nekk ci table procureur te ba mm. tey waxu ci. Ousmane Sonko mom ci jëm bopam ñaata yoon la porter plainte te ken waxu mm, ci mm, mm. bi Mame Niang porter plainte rapidement lañu indi procès ci lolu déjà muy euh, loi wu deux poids deux mesures bi am ci réew mi moy yemale wuñu nit ñi dañoo sétlu ni kat déjà so nekké ci nguur gi saa yo porter plainte facilement nga am gain de cause déjà lolu la ñëk ñaawlu ci affaire bi muy benn Sonko jàgg na porter plainte mais du muju fenn mais du mujj fenn muy benn deuxièmement ci affaire bo xamné affaire privée la ñu topé ko Sonko

képp kuy citoyen sénégalais am nga droit circuler librement kon tey suñuy fustiger li ñuy njëkk fustiger mooy defin gi dafa ñaaw hmm. defin gi soo ko xoolee da ngay xam ni hmm. politique moo ko lal te hmm. politique waru koo lal parce que affaire privée la ci kaw loolu mu dem wuyu ji di ñibbisi di ñibbi calmement ñëpp gis nañu image yi vidéo yaa ngi circuler ñu génne ko ci otowam ci manière bu ñaaw toj vitre oto mën na cee gaañu te normalement ñi ko def ñoom ñoo waroon a assurer sa sécurité mais au contraire je me dis que toj buñu toj vitre est-ce que la sécurité mi ngi hmm. il pouvait le faire autrement. Hmm. sous des sécurité wu Sonko dong mo len ñoroon. waaye niñ ko defee dañ ko ñaawlu. extraire ko ci auto wam yobbu heureusement bañu yobbu ko kërëm hmm. sans et sauf. mu nous conférence de presse ñu dogalé ko ci yoon bi di ay mais ci ban réew lañ nekk nous lo fait acharnement la ñun ñi ci société civile des fois dañuy taxé de politiciens nekkuñu politicien waaye dëgg fu ñu ko gis dañ koy wax acharnement boobu pour lan sur sa personne pour lan te muy citoyen sénégalais dañuy justement c'est la posture de la société civile yi nga xam ne itam da leen taxé souvent mhm. euh, li nga xam ne que moo di pro Sonko mhm. mais dañuy exactement euh, sur les faits sànq wax nga ko ni yëf yi affaire privée la diggante ak mhm. Mame Niang ki nga xam ne que moo di Ousmane Sonko euh, yëfu li nga xam ne que moo di Prodac ñeel wàllum diffamation Ousmane Sonko peut-être moo doon wax IGE waroon wax IGF ne li n'a xam ne que moo tout d'abord Mame Niang daal di koy porte plainte est-ce que jàppoon ni la solution en été que Ousmane Sonko daal di indi li nga xam ne que preuve lui atteste que ni Mame Mbaye Niang na 29 milliards fa na xam ni itam zone product exactement. Mhm. preuve yooyu peut-être su procès amé wala procès tambali dina ko indi mom la engagé parce que dañ ko jiiñ li yoon wax moy jiiñ nañ la mais renvoi tout mais dañ ko Sonko lay euh, euh, euh, si lay si lay si lay wéeru peut-être que c'est l'occasion pour mu dajale assez de preuves man je sais pas exactement lan mooy motifu renvoi yi mais ce qui est sûr moi mom dañ ko djign hmm. loolu lañu wax premier renvoi bi nee na jotul convocation deuxième renvoi bi ay avocat paraît-il même que ba ci deuxième renvoi bi jotaguloon convocation parce que amna ci ben ci avocat yi hmm. kenn ku wax hmm. loolu bon de toute façon man suivre moi dans le fond sujet bi parce que dama ne képp kuy sénégalais nga togn sa morom sénégalais suñ la wowe demal woy ji man posture bobu la na wuyu mhm. ñu renvoyer procès mhm, mhm. peut-être suñ ci aggé dinañ dans le vif du sujet. parce que nous, man tout comme yow. xamuñu exactement. dossier bi lan moko mais liñuy wax juge juge c'est-à-dire procureur bi na fexé te fexe respecté ak ak yelleefu doomu aadama mm. ñun loolu moo ñu fi tax a teew mm, mm. non pas pour faral diw wala diw waaye suñu gisee lu jaaduwul forcément dañ koy wax kon moom li ko war en tant que procureur na ko motale yoon na def liggéeyam mais li ñuy def nii acharnement la te du yoon man nee naa organisme yi sax ñoom war nañ cee wax organisme humanitaire yi war nañ ci wax ku ci mel ni Amnesty ku ci mel ni RADDHO ñi nga xam ne en tout cas ñu ngi ñu ngi aar te xeex ak ak yelleefu doomu aadama dañ cee war a wax parce que yenn yi acharnement la voilà mhm. euh, justement c'est wax nga ko ni waruñoon toj li nga xam nekk est-ce que jàppoon ni démb c'était la solution peut-être pour ñu mën euh, disperser li nga xam nekk la foule exactement euh, il paraît que pour oto ba exactement moo waral ndaa day toj li nga xam nekk moo est-ce que jàppoon ni c'était la solution pour ñu mën embarquer Ousmane Sonko yóbbu ko këram juste pour sa sécurité déjà vitre bi du vitre teintée man démb dama xol image yi xolat ko du vitre teintée xam su ne fekkone vitre teintée la mën nañu ne gisuñu hmm. ki tok ci wetam hmm. Waye li gënoon a rafet hmm. xana nga ne nit ki ne pousse nga bëgg toj mm. mais ci kawam lañu ñu mm. vitre bi mm. lolou mën nañ fa wax sécurité ci kawam lañu ñu vitre bi ay tesson amna lo loo du yoon nañu waxante deug du du dañuy wax pour lu neex nit wala lu neex diw mais suñu gisee la nga xam rafetul dañ koy wax mais du yoon ils avaient le choix ñom ils avaient le choix. le choix bi moy lan ñu bay ko ci auto ah, bi. duma né ne ils avaient le choix en tant que force de l'ordre formé nañ len ci loolu ñom sax xam nañ ni du la warona def mais toj vitre ci kaw nit ki ko de force tout simplement pour assurer la sa sécurité Nous won encadrer auto bi ba mu ag jëm lolu nous ñam lolu leen bëggoon mais Ousmane Sonko mo né du dugg ci tunnel bi. ñaata yoon nous am lutax ñom que exi nañu waxante yow suñ la ko bëggoon def lo yow citoyen sénégalais bi def def état bi di xol num lay état bi déjà mi ngi xol nim lay lay écarter parce que mom li ngay gis ni yëpp ay tentative de pour écarter ko la ñu ngi xool nan lañ lay écarter ñu ne la duggal ci ah, tunnel bi di nga dugg Yolande da ngay confirmer que ni euh, tunnel bi ñu naan ay bomb ñu ngi ci biir tunnel bi da nga peut-être da nga euh, peut-être dañ ci si xaw am ay du touti. man wóoluwuma tunnel bi personnellement wóoluwuma tunnel bi man jamono ji depuis ma commencé di wax ci ci manam mm, ci ak mm. ak yelleefu doomu mm. adama yu bëri ñameetuma fu bëri ñameetuma fa dem yoon yu bëri ñameetuma fa jaar parce que wuluma amana suñu état mm. wuluma suñu gouvernement mm. parce que xamna ni ñom ñu ngi ci ay tentative de liquidation mm. en tout cas d'opposants wala d'influenceurs kon mom en tant que leader politique il a de droit il a le droit de dire que ce bi wuluma fa duma fa jaar il en a le droit légui nak ñom mënoon nañ ko encadrer calmement mu mais pour l'extraire ko ci auto dougalat ko sa auto de force nañu waxante dëgg am yo xamné xam rafetul. est-ce que tamit ñom gisuñu da loo xam peut-être gisuñu ko exactement les forces de l'ordre. Mm-hmm. xamné li lii euh, suñu wéyee di euh, convoi bi su bëggé dem ko dem Ousmane Sonko peut-être est-ce que dara du xew ci yoon bi lo xamné itam ay les émeutes de mars parce que état bi euh, de len béton mars booroon ñu daal di jël tous les dispositifs maintenant pour ñu daal di mën ñu est-ce que gisone nga est-ce que gisoon nga dispositif force de l'ordre est-ce que gisone nga ko. si si lolu kan mo leen mënal dara. Hmm. kan mo leen meunal dara kenn mënalu leen dara manam ils étaient très bien <laughs> hmm. ils étaient très bien partis pour assurer hmm. sa sécurité gangor gu tolu noonu kan moo ko dara kenn mënalu leen dara événement mars yi leçon le peut-être si mais lolu amutoon demb qu'on se dise la vérité amutoon demb demb mbolo mi accompagner Ousmane Sonko est-ce que gis nga ko mais quand lolu mi ngi doon fayir am amuloon te mënuloon am ak ñoom dispositif bi ñu jëloon mënuloon am man démb jaar naa yoonu euh, këru hmm. Ousmane Sonko c'est-à-dire à cité kër góor gi jaar naa fa hmm. mais dispositif ba ma fa gis man damaa tiit duma ko gis sax ci 4 avril hmm. seen char de combat yi loolu kan moo leen mënal dara nañ waxante dëgg rek kenn mënul leen woon dara c'est tout simplement parce que dañ koo bëggoon a extraire ci oto wam doxalee neneen amna ñu naan dafa am doon a testé j'en passe mais en tout cas c'était évitable te ñoom mënoon nañ ko éviter. Mm. alors euh, Yolande sànq wax nga ko que yi ñaari affaire privée la. Mm-hmm. Mame ak ki xam ne moo di Sonko laa fay. Mm-hmm. Sonko def ko a de justice exactement. Mm-hmm. donc est-ce que jàppoon ni euh, li yëpp nag euh, gunge gi rek waral am procès public la affaire privée la mais procès bi c'était ouvert à tout le monde mom noonu la ko waxe parce que seetaan naa conférence de presse bi. ñëpp xam na xajuñu place de justice. waaw mais ku ci mën dem kep ku meuna doxi say soxla rek dama nga doxi ko ñu meuna dem pourtant nonu la nonu la ko waxe moy kep ku meuna ñew ñewal parce que procès public la ñëpp am nañ droit fekke ko mbooloo bi ko topp peut-être su ko wootee gars yi koy fekk. ci mais am na ñoo xam ne nañu 8h am na ñoo xam ne nañu 8h ñen ñi 5h du matin duggu fa tok tok nañu fekke procès bi te dara xewut li fa xew yëpp c'était évitable

kooku sax daanaka démb ci guddi lañ ko libéré ña ca des ñu ngi central ba léegi. alors euh, les deux camps s'accusent Sonko nee na am na ay nervi benn camp aussi nee na am na ay nervi nga xam ne itam nekkoon nañ fa ki nga Sonko la présence des nervis dans ces genres euh, peut-être euh, d'événement est-ce que nekkul tamit wala nañ ko mën a éviter fii ci Sénégal. waaw lépp day dépendre ci nguur gi nan la ko bëggee parce que man sañ naa ni ci société civile bi. Hmm. gisuma ci nervi au contraire ay nit yo xam dañoo mar ci situation yi ñuy dund. taxaw fipp ne lii jaay doole gi dafa dakk tey dina dakk tey te dootul amati ñooñu moo am ci société civile bi ñooñu ñoo am ci la population ñooñoo citoyen yi nga xam ne dañoo yàgg subir ñu sonn ne lii kat dootu fi amati mais amul ay nervi nervi yi fan la nekkee mooy ci côté nguur gi hmm. mooy ñi nga xam ne tey dañuy làqatu encagoulé wu di dóor citoyen sénégalais te dara du leen ci fekk hmm. maanaam du loo xam ne dañ koy créer ne lii moo am waaye lu ñu yàgg dund la mm. ñun ñu yàgg am ay arrestation xam nañ ni mm. yàgg nañoo ñoo arrêté mais des fois ñi ñuy jël di ñu sàndi ci àll bi du ñu ay policier ay nervi la ñu parce que dañuy encagoulé wu mm. te loolu dal na dal nañu fi du benn du ñaar ñu yàgg koo kaas yàgg koo wax mais soo leen waxee dañ daan du ñoom ñoo ñu sànni ci àll bi ñoom police policiers yi waa léegi yow ki la jël si tey ci benn poste de police jël ci la commissariat sandi la ci all bi mm. té ñom ñu né bokul ci ñom kon ñom ñoo cautionné mm. nervi yi ñew di doxalé naka sudul non mm. kon nervi yi lu am la da ngay dajeeg nit sax mu bir la ni ki événement marsi dajé won nga ak mom té nervi la té bokul ci force de l'ordre kon nervi lu am la mais nervi bés bës buñ ko jëlé orienté que pour muy trokatal citoyen sénégalais yi lool c'est parce que dafa neex nguur gi c'est parce que ñom nonu lañ ko bëggé té lool dañ koy ñaawlu bu baaxa baax duñu juk ci diko ñaawlu

nit ki ñu ne dafa détourné xaalis. Hmm. soo seetloo affaire bi affaire u euh, diffamation la hmm. mooy mam Mbaye Niang hmm. ci jëm boppam moo porté plainte Sonko en réalité ñun administratif si si man ñun en réalité lu ñuy xaar mooy rapport yi fi jaar yépp y compris rapport boobu mu porté plainte ana suite bi rapport au Cour des comptes ana suite bi ba léegi amul suite ba léegi amul benn enquête bu ñu ubbi pour finir firndeel ni réellement li rapport yi wax am na wala amul ñun ci loolu la ñuy xaar la justice sénégalaise ci loolu lañ leen di xaar mais pas ci ay acharnement pas ci ay euh, justice su deux poids deux mesures comme ni mm. ma la ko waxee léegi mm, mm. dañuy xaar ci ñoom mooy rapport yi fi jéem a yi fi fexee yi fi génn yépp en tout cas ñu fexee xool si loolu c'est vrai ou pas mooy vérifier la véracité de ces mêmes rapports ba pare woo ñi nga xam ne dañ leen ci accusé ñu ñëw indi seen seen réponse en tout cas seen i preuve ni ñoom laale wuñ ci ñun ci loolu la ñuy xaar justice sénégalaise daal di génn chapitre boobu daal di koy jeexale peut-être Sonko mi ngi euh, résidence sous surveillance suñ sukkandiku si moom nag démb bëggoon na daal di amal benn conférence de presse à partir de 16h30 mais da ko daal di aaye euh, mu génn këram exactement finalement euh, këram la ko mujjee defee 23h30 minutes alors mhm. sous résidence surveillée bi nga xam ne Sonko mom la ko daal di mettre jamono ji est-ce que peut-être c'est pour assurer sa sécurité. mënoon nañ ko assurer autrement. du noonu la ñuy assurer sécurité nit. Hmm. parce que soo nee da ngay hmm. assurer sécurité nit mënoo koo privé de hmm, ses droits. te actuellement ñu ne ñoom dañuy assurer sécurité wam mais ñu ngi priver nit ki de ses droits yow tay da nga xey jugé sa cœur ñew émission au calme mom hmm. amna droit xey fajar génn au calme comme nu mo amé droit fi léegi ci kanam touti wara genn kërëm hmm, hmm, dem julli ji au calme qu'on se dise la vérité c'est parce que tout simplement acharnement la ñu nekk di def sur sa personne té dañ koy dénigrer dañ koy fustiger en tout cas du deug du yoon li ñu nekk di def mm. il a le droit de circuler librement mm. lolu droit constitutionnel u képp ku dee sénégalais nga mm. mais nak nañ wax su dee Sonko légui nekatul sénégalais indien la wala lu mu doon nañ ko wax mais en tant que sénégalais il a le droit de circuler librement ci étendue du Sénégal gi yépp kon nañu bay caaxaan ñu nekkee nañu bàyyi tappale gu ñu nekkee euh, Yolande euh, yeen la société civile là si interpellé directement question mhm. bini ni mhm. dama gis ni tout le temps vous êtes en phase avec ki nga xam ne di Ousmane Sonko euh, premièrement deuxièmement moi discours Ousmane Sonko yi des fois do leen ko jugé mu daal di tout a incendiaire surtout gassa gassa bi le moment où que peut la société civile mu doon nekk équidistant diganté pouvoir ak opposition mhm. est-ce que yeen ni assuré seen rôle carrément euh, ñu ngi koy matale carrément. Mm. la preuve des fois gaa dal suñu kaw ci wax gi ñuy wax dëgg. Mm. des fois ñu wax mu bañ a arranger opposition. Mm. comme des fois ñu wax comme tout le temps sax d'ailleurs ñu wax. Hmm. mu baña euh, arranger nguur gi. lu tax du arranger euh, nguur gi mooy. la vue digganteeg euh, Ousmane Sonko ki nga xam que modi euh Aluntine Africa Jom Sant. mais mhm. gis nga exactement li nga xamni tam xewna fa tête à tête bi nga xamni tam def nañ ko ba tout le temps ñu ngi joxe raison sax par rapport ak taxe wi nga xamni tam ñu leen koy daal di taxé société civile oppose opposition. mais lenn dafa am. Hmm. ci nguur go xamne par exemple. Hmm. dafa nek di opprimer dafa nek di opprimer sa population. kon ku mel ni tey Yolande bi nga xam ne dafa bokk ci société civile ban mm-hmm. posture la war a am mm-hmm. ndax ñun ñoo nekk ñun ñooy la voix des sans voix mm-hmm. li sénégalais yi wax loolu la ñu war a jottali ñi nekk ca kaw a kaw kon ñun est-ce que war nañoo far ak nguur gi mais non parce que nguur gi ñun ñoo leen fa teg ñun ñoo leen dénk suñu alal ne leen doxal leen. Mm. su dee nag ñoom nañu war a doxalee doxalee wu ñu noonu am nañu droit fustiger leen. Mm. am nañ ci droit. Mm. tey opposant bu mel ni Sonko nit ñi nee nañu ko ñun dañuy far moom lu bëri. mais acharnement bi ñuy def ci moom loo leen bëgg ñu wax nguur gi yéen a am dëgg Ousmane Sonko ba mu génnati këram. mais gasa gasa bi mu wote woon. pour œil dent pour la traduire. Hmm. pour pour bi mu hmm. wax hmm. daf ñoo fekk la société civile ci nga manifestation non autorisée. la société civile participer na est le rapport entre troisième mandat ak lu ñu nekk di cadre troisième mandat mais ce ñu mm. def nii mm. acharnement sur sa personne pour mm. lan man dama c'est une manière de liquider des opposants politiques te ñun quoi koy wax Sonko moom moo ko fi mujj wax ñun wax nañ ko depuis belle lurette ñun avons nañ fait organiser ay manifestation y a préfet bi dafa ne du ko nangu mais teewul dañuy wàcc ci terrain bi su jaree jàpp ñu jàpp ñu ñaata yoon c'est parce que xam nañ ni ñun loolu c'est notre droit le plus absolu parce que le droit de manifester c'est un droit constitutionnel Sonko léegi la koy soog a wax waaye ñun yàgg nañ koo wax ñun du ñun ñoo ko ci fekk si de moom mm. moo ñu ci fekk si ndax ñun bu ñuy génn ci tali bi di xeex te amuñu autorisation amaana moom fekk ko fi woon waaye dafa dem ba xam ni kat aux lois injustes wala ñu jox la droit bi nga xam en tout cas ñu ñu ñu ñu ne la mm. leen nii alors que yow leer na la ni fi ñu la bëgg jaarloo c'est injuste yow et yow yow yow euh, citoyen bi mm. da nga war a taxaw fipp ndax ku bëgg a dee wéqu da nga war a fippu parce que yow xam nga sa droit ñoom ñoo la nangu la accordeel sa droit yow kon da nga war a fippu moom nag amaana léegi la koy doog a wax mooy œil pour œil dent pour dent mais la société euh, da nga si ànd ak moom œil pour œil dent pour dent man du ma ne du ma ne euh, euh, il faut ngeen ne gasta gasta rek non du ma ko wax du ma ko wax ndax des eh, fois eh, day am kàddu yoo xam ne noonu lañ koy xam nga lu tax ñu koy rafetal eh, parce que man personnellement comme mais àndoo leen si mën na ko xëy si autrement mais bi nga ko traduire lan la la jox ay pour ay dent pour dent. dafa ñaaw ni président Macky Sall pare na pour mu fat ko comme sax mom ñu fat ko exactement. non waxul fat, waxu fat, waxu ko. mais ni ko traduire ni en français ni ko ni ko traduire ni en français. dafa ñaaw mm. wala ñaawut. Mm. question la bu ma lay poser wat. mais certes. Euh, xam nga tey dafa dafa mais ay conséquences. waa si si dafa may cadeau wolof yo xam est-ce que nekkul tamit fay inciter ndaw ñi.

dóorante bi ci suñu deug ndax ñun ci deug lañuy dox hmm. amana moom da koy doga wax amana kàddu wolof dafa déformé ndaysan ay kàddu yu rafet hmm. lu ci melni tay œil pour œil dent pour dent hmm. soko ko traduire loolu la lay jox kàddu yooyu bëgguma sax di ci jaaraat mais il a raison de le dire il a raison de le dire que waxé ko en français en wolof en portugais il a raison de le dire ndax kuy bëgg dé wéxu parce que nguur gi ni xamut ndank xamut douceur filé ak yang koy def ak ñom wallaay da ngay dëkk ci di wax way duñ la lijeenté nous nous, nous, nous comprendre en tout cas nous, la société civile

bien sûr parce que société civile le mm. euh, collectif pour la libération des mm, mm, détenus politiques le collectif pour la libération des détenus de Pastef ou de Yéwi ou de tralala non détenus politiques. Détenus politiques. mooy képp koo xam ne dañ laa teg loxo te politique ku kese lal ko ñun ñooñu ñëpp la nombre bi plus ñuy dem muy gën

ñu defeere fi ñu defee ñu ñu defeere fi tamit ku melni Anibal Jim parce que duma tay ci diko lim mm-hmm. mm-hmm. Anibal Jim bi nga xamné dañ ko jiiñ mom day subventionné ñi nga xamné ne mm-hmm. mën naa wax ay force spéciales lañu wala ay terroristes lañu en tout cas ñepp ñoo xamné ne dañoo bëgg déstabiliser état bi mm. ñu jiiñ ko ko tout simplement parce que mom mo yag di di initier ay cagnotte ci via Copar Express yag na initier ay cagnotte mm. ci ñi nga xamné par exemple dañoo feebar yag na di initier ay cagnotte ci ñi nga xamné dañ leen détenir illégalement mm les détenus politiques hmm. amana loolu mo déranger état té li ko jappé du yoon ñepp xam nañ ko ku ci mel ni nit dof ñu né parce que dafa saga mais nit dof en tant que tel kan la saga kan mo mën a sa loxo ne tey nit dof man la saga mais vidéo bu mu def euh, defar na bien vidéo. seetaan le vidéo seetaan le vidéo. on l'a visionné seetaan nga hmm. est-ce que dafa saga Macky Sall est-ce que dafa Macky Sall saaga ko. mais incitation à la violence est-ce que dafa est-ce que dafa ne diw saaga ko. man dama dem ba comprendre dama ñu koy topé nee incitation à la violence. incitation à la violence ñaata nit ñoo bokk benno bokk yaakaar té chaque jour di inciter nit ñi à la violence ana Ahmed Suzanne Camara. pa ngol ngol xawma bi nek deux 2STV hmm, lan la wax tal ngol ngol xawma hmm. lan la wax. ku bëgg a taal réew mi faaw ñu fat la. mi ngi nonu hmm. chaque jour ak c'est que ñom ndeysaan. li ñuy def dafa flagrant te dafa ñaaw dafa flagrant ñu ne moom ay saaga lañ ko jàppee moom dafa wax saaga. Hmm. ok dafa wax saaga. li taxoon mu génn jéggalu jéggaluwul Macky Sall dafa ne amaana waruma woon a wax ay kàddu ba noppi hmm. di ci dugal ay kàddu yu ñaaw muy saaga. Hmm. mais kan moo dem ba biir assemblée nationale bi nga xam ne foofooy pencum ndawu réew mi di fa saaga kan la. mais nangu ni saaga na. mais saaga na ñëpp xam nañ ko. nit duñ ko défendre ci loo xam ne du yoon. Mm. dafa saaga publiquement mm, ok mm, mais ñaata nit ñoo fii toog di saaga matin ba soir te kenn du leen wax dara te ñu bokk ci Benno Bokk Yaakaar dañoo ne. loi wu hmm. kumba am hmm. ndey ak hmm. kumba amul nday dafa wara dak ci réew mi du moment que jàpp nañ ko ñu ne solo mom dafa saga nañ wax déjà kan la saga muy ben ñaar su dé saga lañuy ñuy nit ñaata nit ñoy xey suba ba ngoon di saga Ousmane Sonko wala di saga waa yewi Askan Wi wala di saga Guy Marius Sagna te du muju fenn mais offense au chef de l'État dafa am article 80 euh, waaw su dé nit ki dafa su dé nit ki dafa saga président de la République dis-moi yow mi sétane vidéo bi est-ce que nit dof dafa saga Macky Sall c'est que tamit bu ñuy éviter lee question mm. ñàkk féete day xañ a wërsëg. Mm. soit mm. da ngay féete ci dëgg. wala nga féete. ci lu dul dëgg. dañu waxante dëgg. dangay féete ci dëgg wala nga féete ci lu dul dëgg nit doof kan la saaga dafa wax di saaga wax di saaga na ak saaga nit kooku ñu jàpp tëj. maman Amidia, Diagne disons ko tout simplement parce que. Mm. dañu gis ci téléphone am ay transactions moy nit yónnee na ko xaalis moom na xaalis ñu jiiñ ko ni mom moy financer force spéciale c'est-à-dire ay ay ay terroristes jàpp 12 personnes dignes de terroristes moins de force spéciale mm. ñu ne parce que nous voulons taal réew parce que nous voulons attaquer ay centrales parce que parce que parce que nous ñoo xam ne xamuñu sax terrorisme nan lay doxee mm. ci nous xam tout simplement parce que dañ leen une manifestation nous génn manifester ñu accuser leen de terroristes parce que nous mm. nekk di abuser la loi wu terrorisme di ko jiiñ ay xale yoo xam ne du ñu ay et ainsi de suite su ma doon lim du ma fi jugee ku ci mel ni Ndongo est-ce que xam nga lan lañ ko événement mars à Monde 2021. xam nga biñu jappé ay nit euh, ndaysan suñu kilifa gi seigne dit dafa ñaan chef de l'état na libéré le chef de l'état hmm. woné ni libéré na effectivement libéré won na ñëpp dafa ba en 2021 ah, en 2022 mu ba ci Ndongo même chef d'accusation ou événement marsi dafa ni libéré na mu wëraat ci suuf jël ñi nga xam dañ koy déranger tëjaat leen ci kaso gi loolu lañ jàppee Ndongo parce que nee dafa doon def live filmé waale mm, rëbës mm, mm, ba dossier en instruction ci dossier ne flagrant délit lañ ko a kii loxo ci ñu ko instruction fàtte leen fa loolu pour lan ñett ñu ñu muy Bayna muy muy euh, Ousmane Sarr muy euh, Amadou Saran Diallo ñu tout simplement parce que dañoo taxaw libéré Pape injustice yooyu yep nan nga ko meuna classer moy suñu doon lim fi ba suba duñ ci paré tout simplement pour dire que détenu politique yi lu am la hmm. duma né ne sax ay détenu hmm. politique mais ay otage politique parce que dañ leen kidnapper ko ci yónnee won tay euh, convocation mu ñëw wuy la hmm mais nous ñu doxalee kidnapping la té ba tey dañ koy fustiger COLIDEP da koy dakoy koy dénoncer organisation de la société civile yépp dañ koy dénoncer té fi léegi Macky Sall jugul ci lolu mm. wallahi saa ñu xëyee dinañ mm. dénoncer manam mm. euh, malversation yi mu nekkee ci réew mi doxalin gu ñaaw gu mu nekkee ci réew et je pense que euh, actuellement même euh, la vie l'opinion internationale est conscient de Macky Sall li mu nekk di doxalee réew mi te du yoon waaye fiñ koy xaar soriwul 2024 légui mu jot mom amul droit bok té du bok nañu xajal keneen ñëw toog nous y revenons si wàllu bu mel mais est ce que mhm. li nga xam ne que moo di la démarche euh, bu Colideb mi ngi porter ses fruits exactement est-ce que xeex bi yéen si santé sen de plus en plus connu peut-être euh, yefi euh, mi ngi am benn succès jëm ci président Macky Sall sax mu daal libéré parce que aussi libéré na euh, Abdou Karim Abdou Karim Xërëm mm-hmm. mm-hmm. aussi ñom Cheikh Omar Diagne ñom Papito Kara touman Diagne entre autres entre autres mais dañuy nan maki day génne cinq dugal cinq exactement mm-hmm. est-ce que loolu da confirmer man dama nan alhamdoulillah ba mi ngi génné au moins cinq balaa muy 5 cinq mm. tolon nañ fi ay jamono ci ginnaw tout ce qui est libération des détenus politiques no ko dégg lu ci wa waa Colidep doonoo ko dégg ci kenn ñu wéetoon ci lool waaye tey ñu demee ba ñëpp di wax ci waxum détention arbitraire yi ba ñëpp di wax ci détenu politique da doon dem plateau sax ne nit ki détenu politique mu ne la supposé détenu politique bañ a tudd tur bi mais alhamdulilah ba tey ñëpp a ñu nangul te ñëpp a ñu fekk si ci xeex bi mm-hmm. même su dee am na ñeneen ñi nga xam ne ñu ngi porté le même combat alhamdulilah mm-hmm. l' essentiel mooy au moins nit ñi xam ne ni yaa des détenus politiques et que dañ leen a war a xeexal ci biir libération yooyu mm-hmm. Macky Sall dama ne moo tax parce que dafa amoon ay patate patate entre entre ses mains moo tax mënuloon lu dul libéré leen ku ci mel ni Pape Alé su continuer woon nekk foofu wallaahi kooku bës bu dee woon kaso xam na ni loolu ci ndoddom lay lekk te loolu mën na créer kawoo mm. moom sax amaana kawoo intéressé wu ko mm. mais ñàkk nguur gi lay bañ te loolu mi ngi ko doon mëne ver mu ñàkk nguur gi d'une manière ou d'une autre ku ci mel ni Cheikh Omar Diagne ku ci mel ni Abdou Karim Gueye mm. ku ci mel ni Outmane Diagne ku ci mel ni Papito Kara parce que ñoom tamit bokkoon na ci ñi nga xam ne liñ leen jàppee woon dafa basique ba mu ëpp kii ci reetaan kii ci revue de presse dafa ñaawoon lool moo tax mënuloon lu dul libérer leen nee naa état bi ñemewul euh, population sénégalaise. Hmm. moom il suffit que mu xam ni nit ñaa ngi commencé di manko di comprendre stratégie wam. Hmm. day delluwaat ginnaaw looloo tax muy dellu ginnaaw mais pendant ce temps ñu ngi jàppaat ay nit li may faral di wax mooy faut pas prêter le flanc buñ ko may lum ñu parce que combat bi jéxagul day doga tambali té te fileeg bàyyiwul du ñu bàyyi libéré wul 113 détenus politiques yi nekk ci ginnaaw kasso duñu bayyi mm. ñu bolé wacc 25 yi mu muju ni ni ni nii te ñu nekk central fileeg bayiwul ñun duñu bayyi jusqu'à ce que mu wacc la suite. la suite des séries de manifestations des plantes collectives. Mm. des plantes collectives. Mm. parce que limu monnaies nekk di def du yon imagine ki nga xam ne da koo jàpp ma jël exemple Ousmane Diagne bi nga xam ne dafa simplement ñu jàpp ko dugal ko rëbës privé ko de sa liberté parce que liberté amul prix Hmm. privé ko de sa liberté hmm. privé ko de ambiance familiale bi mu woron dundu euh, mu jele ci lenen ak lenen parce que ñepp xam nañ ni kasso njeexital yi mu am ci doomu adama hmm. euh, du lo xam ne mën nga koo quantifier mais c'est énorme amna lo loo mëno ko quantifier comme vie mëno ko quantifier liberté mëno ko quantifier ku ku mel ni kooku nga japp ko ba yalla may la sa jamm xey xey libérer ko dédommagé woko lijeenté woko falé woko koku amna droit porté waat plainte état du Sénégal parce que soo seetloo ku ci mel ni Ousmane Diagne ci simple reetaan juge procureur bi moo autosaisiru ci reetaan nga autosaisiru ñu ne tey suñu milliard du rees ñan la ñu topp mooy ñi nga xam ne dañoo laale ci rapport cour des comptes bi ba tey autosaisiru woo te dugal nañu ay plainte collective hmm. lijjante woo ko hmm. kon loolu njeexital yooyu noonu yëpp am na donc y a des plaintes

dafa am ñaari campagne yu am mm. yoo xam ne ñoo nekk ñoo bon ils vont de pair mm. ñaari campagne mm. muy campagne intimidation yi te balaa ñuy ñëw ci élément Pastef fi yaakaar naa société civile bi lañ ko njëkk lañ ko njëkk mosal ñun ba ñu yëg ko mu amaat beneen campagne muy campagne de diabolisation campagne de diabolisation bi moy lan saa yu ku bokke ci parti ba nga xam ne nak parti wu Benno Bokk yaakar wala parti wu APR génnee wax dara ñu jéma xol xool nu mu gën rek ñu interpréter ko nonu mais fi la koy waxé moy ñun on est responsable de ce qu'on dit mais on n'est pas responsable de ñom nuñ ko comprendre ak nan lañ koy transmettre wala véhiculer bu len yabo ngeen ne ku bokk ci société civile bi wax na kàddu gu ñaaw bi ba ci gatsa gatsa dañ koy traduire ay kaddu yu ñaaw waye du té révolution bi day am té tambalina té citoyen sénégalais ñoo ci taxaw ak képp ka nga xamné bokku nga ci opposition bi ñu ngi la ci xaar mm. amna ño xamné ba tay euh, ñu ngi ci opposition bi mais nanguwuñu wone seen péete mm gis nañ ko fi am na ñoo xam ne ba léegi dégguñu seen kàddu waaye teewul la société civile li mu war a liggéey mi ngi koy liggéey bu nekk waa Pastef dong la ñu nekk di intimider waaye képp koo xam ne yaa ngi dox ci éveil de conscience dañ lay intimider donc maanaam euh, yaa yaa euh, chose de la société civile yi nga xam ne itam peut-être dañ leen xaw a jënd mm-hmm. euh, ñu xaw a téye seen làmmiñ si lu bëri mais jënduñu la société civile suñu jëndoon la société civile en tout cas ñun duñ fi toog fii ku ñu jënd dafa fekk yow nga bëgg ñu jënd la quelques-uns maanaam ñu nekk seen biir comme parce que si am na ñoo xam da leen di euh, euh, soo leen euh, waxé ñom ñu ñëw weddiwaat ko c'est-à-dire dinaan dañuy garder ben poste bu neutralité justement pour ne pas citer les noms ñoo xam tam peut-être dañuy naan société civile leen bokk mais jëfuñu carrément li nga xamné ne que moo di société civile. xam nga tay ku boot bukki xaj mbëw la. Hmm. te tey kuréel goo gis. Hmm. am na ñoo xam ne ñu ngi ci kuréel gi waaye am na ñoo xam ne dañuy mbubboo kuréel gi du dëgg kuréel goo muntu gis muy ci yoonu yàlla mm. muy ci saayir mm. koo gis am na ka nga xam ne danaan mm, ci kuréel gii laa bokk te bokk ca daf koo bëgg mbubboo tey ku la neex nga bokk APR su la neexee nga ne man société civile laa bokk ku lay weddi kenn du la weddi parce que société civile mooy li nga xam ne dafa ubbeeku soxla woo carte de membre pour bokk ci société civile donc la neex ne ci nga bokk waaye ñi ci bokk dëgg xamante nañ seen biir ña ca nekk dëgg xamante ñu seen biir kon naxante que peut-être euh, li nga ne que moo réglementer ce secteur peut-être nous mu leen discerner nous discerner. mënuñu ko réglementer parce que fii. Mm. Euh, ndeysaan comme Nico Aliou Sané di waxé né la société civile bi. Mm. li def particularité wom wala li def beauté ou mm, moy le fait que mu diverse parce que tey. Euh, c'est pas forcément Yolande bu bokk SNP. wala diw bu bokk organisation mom mo bok doxaline par exemple. ak ki nga xam ne moo africa Jom Center. te pourtant ñoom bokk nañu ci ci ci société civile bi mais seulement bokkuñu zone bu ñuy agir des fois sax duñu bokk ay méthodes. parce que des fois nga def manifestation non autorisée am keneen ku bokk ci société civile bi ne man kat su ma sañoon kenn du dem manifestation non autorisée mais teewul dañuy dajewaat ci ponk ak ak yelleefu doomu aadama mm. mooy ku ci nekk suñu salfaañee say droit wala say devoir di nga xam ne réellement qui li li mu de di subir di subir en tout cas injustice là et c'est ça qui fait la beauté même de la société civile soxla woo am carte pour bokk ci mm. mais il suffit que nga doon la voix des sans voix mm. considérer nañ ni yaa ngi ci biir société civile alors euh, dañuy ñëw si Walfadjri bi nga xam ne itam coupé nañ ko seen ko marché tey jii wala nañ ko daal di mën a amal fa nga xam ne itam mooy CNRA euh, alors euh, le mooy sa gis par rapport ak doxinu ki nga xam ne que moo di Babacar Diagne coupé signal Walfadjri ni dafay daal di wan ay image yi nga xam ne dafay daal euh, euh, inciter la population jëm qui ak euh, dafa ñaaw dañ koy ñaawlu bu hmm. parce que hmm. créé wul information. Hmm. dafa relayer information et je pense que groupe de presse nga l'information vraie et juste en temps réel information mooy newuñu yee ngi tàkk fee non dañoo nekkoon sur les lieux bi ñu sur les lieux ñu gis ni lii moo xew ñu relayer l'information yokkuñ ci ci lan ci jar signal bu ni entreprise le ñu ngi mois de février dafa gàtt 28 jours lay lay lay lay euh, lay en tout cas hmm. nga privé ci euh, nit une semaine muy sept hmm. jours hmm. sept jours ci 28 jours alors que mon loolu moo mën a tax mu fay ay employé yàqal ben société te tegoo ko ci yoon su fekkoon dang ko yàqal ba nopi teg ko ci yoon ñu mëna a wax mais ci liñ ko jappé du yoon parce que dafa relayer information. Mm. Beaucoup ak inciter nit ñi à la révolte wala à la violence ou autre dafa relayer information en temps réel. 2021 kawo 2000 kawo mars bi bi fi amone ñaata euh, ñaata maison de presse ñoo doon relayer information bari na. mais ñëpp leen mais euh, nan lañ leen tëjee dañoo coupé sen signal. Walf euh, ñaata jour neen leen.

amu ci droit parce que ñom dañoo relayer information mais mm. alhamdoulillah mm, mm. ba soxlaatuñu ay euh, ay maison de presse pour mën am mais légui lépp dañ ko digitaliser tout est virtuel moi, tay que ñom ñu woné ko ñun information bi ñu bëgg am parce que nous, ci ëpp ci maison de presse yi len lañ leen xamee dañuy fabriquer information dañuy détourner information moy ñëpp dañuy gis ni li jant la wala li wër la ñom ñu mm. information mm. réelle ah sans pour autant diar ci ñom moy légui tout est digitalisé tout est virtuel mm. soxlaatuñu nit di ñu indil euh, diñu di indil en tout cas information mais ñun en tout cas mm. tout le temps ñu ngi suivre information information mm. sans pour autant diar ci yenn maison de presse et alhamdulilah en tout cas li len dal tay metti nañu lool té tay inshallah après midi bi dinañ nek buntu siège ba pour manifester ak ñom ci li nga xamné dañ ko subir té ñu gis ne vraiment injustice le justice deux poids deux mesures alors sank brossé woon na jëm ci nga xamné di ñettelu mandat bu président Macky Sall ñi né euh, deuxième quinquennat ñi né troisième mandat exactement alors va APR dañu daal avant avancer tout le temps que nous ne peut faire deux mandats consécutifs de cinq ans mu daal nous nekk benn débat bi nga xam ni itam euh, euh, na lool li nga xam l'université nous ji parce que aussi c'est la guerre des universités mm-hmm. jëm sur cette question de la troisième candidature du président Sall il y a une bonne si par rapport à cette question xam nga mbir mi. Hmm. Eh, soo jëloon liir buy doog a judd sax ndeysaan su xoolee tuuti en arrière sortie yi président bi def ak hmm. Hmm. surtout Ismaïla Madior Fall. moom mi ci ne peut faire plus de de nul ne peut exercer euh, plus de deux mandats consécutifs moom dafa leeral wax ji donc soxlawul sax di chercher loin dañuy delluwaat ci vidéo yu pour mën a xam exactement si ñoom li ñuy avancer dëgg laam déet ci kaw euh, constitution bi car da ni dafa leer. Hmm. nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs teguñ ci 5 ans teguñ ci sept ans teguñ ci dix ans aller plus loin Nous ñom ñoo verrouiller euh, constitution bi ñom verrouillé article bobu hmm. te li ma un euh, verrouillage de article bi ñun dañ ci perte lu bëri ci nan lañ ci perte moy perte nañ ci en argent mm. parce que xaliss lañu ñu mm. pour mëna def lolu noonu yëpp mm. pour mën verrouiller la constitution perte nañ ci en vies humaines moy lan ñaata nit tey ñoo làqu yalla na leen borom bi yërëm ñaata nit tey ñoo làqu tout simplement parce que président bi fi nekkoon dafa bëggoon a briguer une troisième candidature ñaata nit est-ce que contexte yi benn la contexte où est la différence